salaamaaleykum waa Sénégal maa leen di nuyu ku ci ne sa sant waa tey nag dama am lu ma metti lu may jooy di ko gaas Sénégal euh, rawatina ci hôpitaux yi hôpital yëpp ci hôpital yi waaw parce que le 27 bi passé le 27 octobre bi passé dimanche. Euh, suma seex dafa def accident croisement Kër Massar ci Njaga Njaay benn camion militaire moo leen bëkk moom yàlla def mu jëlee ci fracture ñaari tànk yi waaw bu damm metti sax boole ci tànk yi xotteeku kon loolu metti na ambulance nag biñ ñëwee ñu jël koor bi daanaka ay 18 heures lañ ñu bi ci oto bi jubali hôpital yi biñ demee ci CTO la njëkkee biñ demee CTO waa CTO xool ko ñu ni jël ay carton bande defar tànk yi band ko yabal leen principal ñu dem principal bi ñu demee principal ñu ñëw ñu ne amuñu place ñu ne amuñu place biñ naa amuñu place ñu nekk fa jàppal bàyyil médecin bi ki ñu wax ni moo monté ci guddi gi mi ngi urgence ñu ne ñu dañu dugg urgence ñu dugg urgence waaji nañu xaaral chef bi ñëw bu chef bi waxee ñu jël ko rek ñu jël ko suma benn mag wootee foofu bi sama mag bi di woote nag nanguwuñ ko jël bi mu wootee laajte benn médecin mu ne ñu laajte leen diw ñu ñëw laajte xaw ma nag jóob daal ñu ne ñu nekku fi mu woowaat mu woowaat ñu téléphone ñu ne ko ah kooku nee nañ nekku fi moom tamit xaw ma kan la woo noonu ba ñu jox ko tur mu woowaat ñu jox ñu tur bi biñ ñëwee laajte tur boobu waaj nañu maay nii ñu ne ko diw moo ñu boole yow rakkam moo def sag bi pour ngeen jël waaj nañu waa chef bi moo ngi moom su waxee rek ñu jël ko ñu ñëw ni chef yaay diw mu ni waa maay diw ñu ne ko waa ñun de dañu indi fi benn kii bu def sag mën nañu waaw mais place amul sama yaay naan ne ko ah sëñ bi te nga maa dimbali nga jël ko sama doom la sonn na mu ne ko maire fii ñu fi ñëw ñëpp a sonn sama yaay ne ko waaw xam naa loolu waaye danga may dimbali rek kee dafa sonn kaay nga xool ko dimbali ma rek sarax ma ngir yàlla laa war a suul sama yaay katamu ko jàpp tànk yi man tamit sama xol jeex na te suma yaay mag la yërëm naa ko mais tamit yërëm naa sama seex bi toog ci ambulance bi depuis dix-huit heures ba vingt une heures vingt heures deux heures presque médecin xoolu ko laal ko wax waa ji ne du ko jël ma ne ko waa mais grand mën naa laa ñaan benn affaire fekk booba man li ma ko bëggoon wax mooy que ni xoolal moo ko dimbalee pour douleur bi mën a wàññeeku waa ji na ma man daal je naa diir à dire avec toi ma ne ko sëñ bi looy wax nii mu ne man aw ma dara lu may wax ak yow li may wax wax naa ko ba pare ma ne ko waa mais nga déglu ma nga déglu ma tuuti xamoo lu ma lay doyee de xamoo lu ma la bëgg wax. mu ne man daal wax naa lu ma lay wax wax naa li ma lay aw ma dara lu may wax ak yow ma ne ko nag mais sëñ bi yow war a xam yow fii tegoo fi sa bopp yow fii dañ la fi teg pour ngay faj doomu aadama yi chaque fin mois dañ lay fay xaalis bu weex tàll may may mayewoo li ngay faj du gratuit li ngay liggéey fii du gratuit kii da ko war a faj yow da nga war a wax ak man par force mu ne ma non ma wax ak yow aw ma may wax ak yow man nar a ak moom foofu su ma yaay téema woo suma copain yi ma ñu jàpp ma génnee ma ci biti ma génn toog ñu defal ma ma ñëw xool solution met sapeur bi ci boppam moo ñu ne dangeen di jéem a xool benn clinique privée yi ngeen ñu yóbbu ko fa sama benn copain taal otoom ñu yéeg ci dem benn clinique privée bu nekk foofu biir dakaar xaw ma clinique mat leen la tur bi laa jàppul ko ñu ne ñu bu ngeen amee un million daal ñu laal ko su ma copain bi nag ma waaw ah, mais mën naa teg deux cent cinquante ci taabal ji waa nañu non il faut un million te wax dëgg fa yàlla man mii seexam man yor ma un million suma benn rakk yorul un million waaw gannaaw yàlla euh, suñu liggéey yaakaaruñ keneen ku dul yàlla waaw ci loolu ñu dellusiwaat principal ba léegi médecin yi nanguwuñ ko laal ñu ne ñu dem leen Dantec ñu dem Dantec waa Dantec ni ñoom seen urgence euh, dañ koy defaraat dafa am ay paan dañuy def ay regla dañuy defaraat yooyu daal di jël benn pikiir morphine xaw ma daal lañ ko defal ci butéel yi bàyyiwaat ñu ñu ne ñu dem leen Fann ñu dem Fann tamit la Fann tamit euh, Fann nañu la même chose par la suite lañ dem fële. gendarmerie xaw ma fan daal ñu yabal ñu kii non police centrale lañ dem ñu yabal ñu benn gendarmerie bu nekk foofu ci ginnaaw xaw ma conk la xaw ma biñ demee waaj ñu fekk ñu kenn conk benn waay dong lañ fekk waaj nañu woote ñu ne ñu léegi dañu dem bu Kër Massar bi ñu retourné di dem Kër masaar ci autoroute à péage bi lañ jaar. ak ambulance bi foofu daal la sama seex wàccee liggéey ci la gaañu ci autoroute à bi la gaañoo sappoor yi nag def nañ seen kemtalaay kattan pour sauver ko mais yàlla nanguwul yàlla nanguwul mu nekk nag loo nga xamante ni metti na ma trop metti na ma torop parce que dama ne woon damay def plainte dama ne woon damay def plainte waaw dama ni damay plainte surtout ma principal parce que médecin boobu médecin boobu li muy jaay nekkul quoi nekku amul moom du boppam moo ko fi du nguuraam moo ko fi teg ndax am na ñu ko ëpp ay diplôme fii ci Sénégal te liggéeyuñ kon moom suñ ko jëlee muy liggéey dafa war a respecte doomu aadama yi waaw dafa war a respecter doomu aadama yi parce que kooku respecté wul doomu aadama kooku warul doon médecin waruñu ko jël ci benn hôpital. ndax ku nanguwul faj malaat kooku yow waruñu la jël ngay liggéey ndax doo nit ndax nit du seetaan doom moroomu doomu aadamaam moroomu jullitam muy muy faatu noonu chrétiens yi sax dañuy dimbalante tubaab yi sax gëmuñu yàlla gëmuñu yoon mais dañuy dimbalante te dañoo fonk doomu aadama mais kon pourquoi pas Sénégal nit ñoom respecté doomu aadama lan moo waral loolu lan moo waral loolu bu fekkee suñu gouvernement yi ñoom ay yaafus la nan ñu ko wax nan ko wax Macky Sall bu fekkee réew bi nii lay doxee mu wax nu bu fekkee askan wi ñoo ko fi tax a toog askan wi lay xeexal kon na wax ci lii médecin yi nii nang bañ faj doomu aadama yi nañ ci wax bu fekkee moom il est le père de de la nation bu fekkee dëgg la na ci wax man man voteelu ma Macky Sall mais tamit mënuma ko bañ suma président la mais dama ne bu fekkee moom réewam nii lay doxee moom na na na nañu abal bu mu doon président parce que ay médecin yoo xam ne kenn nangu cee def sa liggéey amul fenn Sénégal rek la am dañ koy wax te dee lii dafa neexul dafa metti bu doon doomu Macky Sall la daal wala jarbaatam dañ koy faj dañ koy faj senegal nañ xoolaat li ñuy def bu baax dañ ko xoolaat man nag dinaa def sama plainte dinaa def sama plainte waaw lu ma yoon may ma jël bu fekkee sax Sénégal am na yoon waaw dinaa def sama plainte parce que tamit première fautif militaire yi waruñoo mbëkk Ndiaga Ndiaye bu doy noonu mu am ay blessé ay mort ñu bàyyi leen noonu autant que pourquoi pas ñoom boole wuñ leen ak ku ci ne ñu boole la ak benn militaire mu yóbbu la benn hôpital bu demee ñu mën laa jël par force loolu tamit lu jar a wax la loolu lu jar a wax la du hôpitaux yi rek mais ñi def soog bi seen bopp ñoom seen bopp am nañ ci part de responsabilité am nañ ci part de responsabilité waaw parce que lii neexul un jeune ba nga xamante ni mi ngi gañee life am honnêtement sàccul agressé wul waaw day xëy dem daani dooleem di ci dimbali yaayam di ci dimbali ay rakkam ak njabootam du xëy un jour def soog benn hôpital nangu ko jël mais lan la wala bu fekkee dañoo bëgg dañu ko jàppee bëgg a def sacrifice non bu boobaa dama leen di tam ay dëmm waaw dama leen di tam dëmm waaw te li ma wax man ragal moo ko te du mu ci tiit. waaw gannaaw yàlla yaakaaruma kenn ku dul sëriñ Tuubaa waaw li may wax nii nag daf ma metti moo tax ma koy wax dama koy kaas daf ma daf ma metti dama koy wax te kum daloon tamit danga ko dalay metti parce que suma seex la 39 ans moom ñu koy nekk ci live bi lu ne ma koy def mu ma ciy génnee lu ne mu koy def ma ko ciy génnee kon tey bu xëyee tey def benn choc hôpital benn hôpital nangu ko jël ça me fait mal daf may metti daf may metti képp ku seetaan ojo bii nag wala nga dégg ko vidéo bi nga seetaan ko bu fekkee yaakaar nga ni man nekkuma ci dëgg wax ma bu fekkee maa nekk ci dëgg tamit nga wax ma parce que lii neexul dafa metti dafa metti xale bu ndaw ñu sacrifier sa life ah sàgganee la ba dee ci koo xamante ni fi mu tëdd mi ngi bëgg a dee ak mettit mais terewul mi ngi naan mi ngi dëgër mi ngi naan médecin yi dimbal leen mën li laa war a suul ngeen takk su may tànk métti bi arrêté kon kooku buñ ko dimbali woon amaana sax mu mu mu rëcc même bu dee bu dee dundaat deux jours sax mu dundaat deux jours ñu xam ne hôpitaux yi def nañ seen kéemtalaay kàttan mais kenn nangu ko cee laal kenn kenn kenn nangu ko cee laal mais dafa metti c'est vraiment honteux ba sëñ Bamba metti na metti na ba ci kanam yàlla te lii dañ ci war a jóg lii dañ ci war a jóg Sénégal dañ ci war a jóg lii dañ ko war a xeex nit ñi médecins yi dañu war a xam teguñu fi seen bopp teguñu fi seen bopp te du hôpital yu ndaw yi rek de hôpital yëpp la hôpital yëpp la waaw mus naa for benn taalibe bu def soog ci tali bi ma yóbbu ko Dominique ba demee Dominique dama ñëw ñu ne ma waa Dominique dañoo grève parce que boobu man yor ma xaalis bu pour faj taalibe bi. mais li may wax ni am naa si am na benn paa boo xamante ni ñoo àndoon ñoo bokk fi ñuy liggéeyee marché poisson ñoo àndoon. taalibe boobu bi ma fëggee bureau bi ñu ngi ci biir di waxtaan bi ma fëggee faale wuñ ma ma fëgg correctement faale wuñ ma mais bi ma xàccee ku dóor ci bunt bi dañoo jóg ibbu bunt bi ma mais man leen yéen mais kii yéen lan la mais yéen leen yaakaar ne yéen a fi teg seen bopp mais yéen tegu fi seen bopp ah waaw ñu ne ma lan la man leen taalibe bi dafa def sob ma indi ko fii ñu indi ko fii ñu ne ma naa ko indi fii pour euh, affaire ndimbal ndimbal faj ko mën ko faj gratuit waaj na ma non dañoo grève ma ne ko dañoo grève kon lu ngeen di def fii lu ngeen di toog fii di waxtaan ñibbi leen seen kër yi wala ngeen génn ci biti yor ay drapeau ay ay kii euh, bande rouge waa ji nag foofu sama xol jeex mujj gi ma génn ak taalibe bi am sam poos faj taalibe bi mais Sénégal li fi am amul fenn fii li lii Sénégal fii la am Sénégal fii la am te lu ñu war a kaas la te nekkul lu ma dund benn yoon ñaari yoon dama ko dund dund ko dund ko ci hôpital yi am na si koo xamante ni su da doon xeex ak suma benn copain ñu dóor ko copain bi dóor ko mu toj ñu yóbbu ko Dominique ba ma demee Dominique bi ma jëndee ticket mais passement yi Dominique ñoo ko war a def mais femme bi daf ma doon jënduloo ay garab yoo nga xamante ne nii naan ma ay 3000 lay jarab yi bi ma demee ci pharmacie bi ay 1000 francs lañ may wax la garab gi jar barki Seydina Mohamed te li may wax ragal ma ko hôpital Dominique ci boppam laa la wax sagam hôpital Dominique mooy def loolu waxantuma laa ay principal non hôpital yi li fa am amul fenn li fa am amul fenn te lii dañ ci war a jóg gouvernement bi dafa te war a jóg jël ci ay matuwaay bu fekkee moom nee na askan bi moo ko fi tax a taxaw moo ko tax a toog fii dafa war a dimbale askan bi ko lii dañ ci war a jóg buñ ko bàyyee nii Sénégal du dem ndaw yeeg ñëpp ay àndandoo dee ku amul xaalis donc da ngay dee ku am xaalis ay dund kon dañ ci war a jóg lii du yoon c'est pas maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp ku gis vidéo bi nga jottali ko sa moroom képp ku ko jottali sa moroom yàlla la yàlla Cheikh Ahmad Bamba teral ci àdduna ak alaaxira barki Serigne Touba.